جونسي حسنا وجارا دواما جونسي اللي إلهي سلام الله mbokk yi di topp saa su nekk si Touba Argentine TV waxoon nañ leen jamono ji ni kat ki nga xamante ni mooy Khadim Gueye dina fas yéene ñëw si gox bi Argentine fa yéene seet si mbokk taalibe yi amal fi nag ay jàngu yu am solo gan ngeen doon xaar agsi na naka tey jii ci sand ji bi quatre heures et demie jotee si aéroport aéroparki Khadim Gueye ànd ak délégation bu am solo wéy ni nag fi nga xamante ni foofii la bokk taalibe yi nekk xanaa rek dañuy dem jox kàddu gi ki nga xamante ni moom mooy góor a mu gën ñu see indil ay leeral. Eh, jërëjëf sëñ Babacar Samb eh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax ni nga ko waxee ni la ñu ngi fii ci eh, capitale bu Argentine. ci aéroport aéroparquet euh, sëñ Xaadim Guèye nag agsi na ni nga ko waxee bi 4 heures jotee ba tegal lu euh, mat ñeent fukki simili yi mi nga ànd ak nag sëñ Abdoulahad Bousso bi nga xam ni moo nekk ci kuréel Muxaddamatul Xidma di amal liggéey yu am solo ci jumaayu Tuubaa ji lu ci demee ni social ak euh, ndaw yi nga xam ni ñu ngi koy doxal ci wàllum koor gi bii nag mooy ñaareel bi yoon suñ xaadim di ñëw fii ci réewu Argentine gis ngeen yoon bu njëkk bi dafa waxoon ni fasante na kóllëre ak waa Argentine loole nag mu mel ni mi ngi koy uh, feddali waaye mi ngi koy uh, doxal bu baax bi mu wàccee nag fekk na fi ay mbokku taalibe ñu teextu ko ci ay déport bi ñu gën ci nag ràññee ki nga xam ni moom moo di uh, jëwriñu fédération bi di Serigne Talla sàll ak ki nga xam ni moom moo jiite kuréelu xasida yi muy Serigne Baye Cheikh Jenn ak ñenn ñoo xam ni ay jàngkat lañ yoo xam ni dañuy jàng-jàng awu ñu daal di daral Serigne Khadim Gueye ànd ak moom ba ci hôtel bi nga xam ni moom la dal muy hôtel Rodrigue Peña 320 foofu la fa yéenee nekk ba jàng yi passé bis bi nag xam ngeen ni ak léegi waa Argentine ñi ngi koy waajal mu na moo yemoo ak le 31 ci weer bi ñu nekk eh, di àllarba nga xamee ni itam mbooleem ñi nga xam ni dañu nekk ci réew mi dañu yàgg am cofeel ci ki nga xam ni moom moo di sëñ Xaadim Gueye kon daal xam naa suñ Babacar loolu moo fi tukkee bu ma agsee ci hôtel bi nag kii di Aya Xuma di reporter du Argentine TV daal na koy euh, dekk micro mu daal di jotal rek ay kàddu mbégte yi nga xam ni am na ko ci ak yóox bi ak it daal di jotal nuyoom ci mbokk taalu bi yi nga xam ñoo nekk ci réew mi. ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaare ñu leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel di am mbégte bu baax ci ñëw gi nu fi ñëw fekk si mbokki taalibe nekk fii ci Argentine. te muy jéego yu mbégte ak euh, jéego yu nu sawar a ñëw euh, li coono bi nuru nuru lu metti gisuñu ci dara ndax sawar guñ sawaroon a ñëw ngir fekk si mbokki taalibe yi fii ak ak soppe ak wëllëre ngir jëm Sëñ Tuubaa ak xasaayid yi Euh, ñu ngi leen di siyaare bu baax nag tey ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko yàlla sàmm ko bi ñëw tam ñi ngi ànd ak sëñ Abdou Lahad Bousso moom itam bàyyi ko Touba ca mhm. xidma muy daayira daayira xidma bi nga xam ni mhm. mu xadimatul xidma ba nekk ci jumaa ja mhm. te yor lépp li aju ci jumaa ji moom lañu àndal ñëw fi ñu ngi leen di siyaare bu baax leen wax ne yegg si nañ ci jàmm jërëjëf salaamaaleykum